Macky Sall daa wóoluwul conseil constitutionnel. Hmm. wóolootul conseil constitutionnel ndax bu wóoluwul conseil constitutionnel xam nga ñëpp maa ngi wax sànq ne Karim Wade dossier woom atte woon nañ ko ba mu définitif. Hmm. mais joxoon nañ ko ay fiches mu dem collecté ji parrainage ñu collecté parrainage ba pare jàll na parrainage. dafa dem conseil constitutionnel moo invalidé candidature bu Karim Wade. Hmm. Macky Sall ñi fiy jug di ko défier est-ce que kenn xalaatoon nañ ñetti weer ci ginnaaw danañ défier Macky Sall kenn xalaatu ko am nga 4 mois dafa neex a muñ. Hmm. te boo gisee sax ma wax ci tuuti xam naa dinañ ci ñëw boo gisee gouvernement bi ni mu ko tëggee nga xam ne ñi profil yi mu soxla woon mënu leen a am. ndax mënoo nekk di gouverner. Hmm. presque 11 ans 6 mois mu dese la 4 mois nga bëgg cee taxal ay nit am na nit ñoo xam ne ñu bëgg a tax. lii may wax ni Thomas Sankara moo ko waxoon que ni bu ñu reyee Sankara ay Sankara ay Sankara dinañ juddu. waaye boo faagaagalee Ousmane Sonko boo demoon ba réussir ko te réussir def nga lu ne te réussir ko. Mm-hmm. même boo ko réussiroon sax ay Ousmane Sonko yu bëri dinañ judduwaat. li nga xamante ni xew na démb mooy deux mille deux mille dix neuf ba léegi. Mm-hmm. la tàmbali sax ndax. ci la affaire 94 milliards yi commencé woon Ousmane Sonko mm-hmm. dem yoon mm-hmm. dossier yooyu yëpp fi jaar mooy ci affaire 94 milliards dossier Sweet Beauté euh, dossier Prodac ba ci plainte bi nga xamante ni moom la ko agent boobu sant Nappel defoon mm-hmm. amul benn yoon bu ko justice mase yëkkati dëgg jox ko Ousmane Sonko Sénégal dafa am loo xamante ni moom lañ fi tudd loo xamante ni moo tudd séparation des pouvoirs ñett pouvoir yoo xamante ni benn du ci laale ak sa morom muy pouvoir exécutif bi nga xamante ni Macky Sall ak ay ministres am lañ ak pouvoir législatif bi nga xamante ni mooy président assemblée nationale la ak député yi ak ñooñu ak pouvoir judiciaire bi nga xamante ni nag attekat yi la ak ay procureur ak avocat yi loolu séparation des pouvoirs dafa war a am pouvoir exécutif bi warul mën a influencer benn yoon pouvoir judiciaire bi mais loolu nag amewul noonu pouvoir pouvoir euh, executif bi dafay influencer pouvoir judiciaire bi lu yàgg loolu lañu yàgg xam ci Sénégal moo tax benn décision justice boo xamante ni dafa waroon a nekk lu banal mu mujjee nekk lu historique ba instant bi juge bi nga xamante ni moom moo jël dossier bi nga xamante moom moo jël décision boobu jëm fële ca tribunal bu Ziguinchor ñu ngi koy tudd di tudd juge yi nga xamante ni ñoom la Sénégal gën a jàpp ci taarixam mooy ay Kéba Mbaye ak ñi nga xamante ni histoire jàpp na leen ngir dëgg gu ñu dëgg woon ci liggéey bi nga xamante ni ñoom dañu ko daan liggéey li tax Sénégal boo jëlee décision bu mel ni bu démb bi ndax décision bi nga xamante ni moom la juge juge bi génne dafa nekk décision boo xamante ni wuute na ak bëgg-bëggu pouvoir bi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk. looloo tax mu nekk loo xamante ni lu waroon nekk lu banaal dëkk yi nga xamante ni démocratie dafa am décision wu justice lu banal la fa la fay nekk dafa nekk loo xamante ni événement la fay nekk bu jëlee ab décision ak de justice bu ku mën a laal non événement la fay doon jamono ji ñu toll réewu Amérique Donald Trump bi nga xamante ni mu ngi nekk candidat war a bokk ci élection yi nga xam bëgg a bokk bokk ci élection yi nga xamante ni moo war a am foofu deux mille vingt quatre mhm. ñi ngi koy convoqué muy dem ci justice ak a ñëw mhm. chaque jour heure bu ñu ko convoqué mu ni dañ ko bëgg complot li mu nekk opposant looloo tax ndax dafa bëgg a participer ci élection yi mais loolu boo ko waxee Amérique kenn du la déglu ndax doomu président bi di Joe Biden ñu ngi koy convoqué muy dem tribunal ak a ñëw te boo mét danañ ko danañ ko jàpp di ñëw boo demee France Nicolas Sarkozy allié bu Emmanuel Macron la mhm. mais ñëpp xam nañ ni Nicolas Sarkozy mi ngi dem ci yoon ak ñëw. Mhm. kon foofu ku fay wax naan pouvoir exécutif bi dafay influencer pouvoir judiciaire bi kenn du la faale mais fii nag Sénégal ñëpp xam nañ ni pouvoir exécutif bi dafa dugal loxoom lool ci pouvoir judiciaire bi te lépp lu mu bëgg ci ñoom daf koy am kon boobu boo amee benn juge boo xamante ni résister na ci bëgg-bëggu pouvoir exécutif bi. dafay nekk décision bi nga xamante ni génne na ko mu nekk décision boo xamante ni arrangé wul pouvoir exécutif te pouvoir exécutif bi leneen lañ bëggoon ci moom décision bu bi waroon nekk décision bu banal dafay mujjee nekk décision bu historique. Mhm. ginnaaw démb décision bi nga xam ne ba tey eh, eh, juge eh, bi nga xam ne jël na ko démb ci procès bi nga xam ne moo moom moo doxoon ci mbirum Ousmane Sonko jëm ci wàllum radiation gis nañ tamit ki nga xam ne moom mooy agent judiciaire de l'État jéego yi nga xam ni démb ba tey gis nañ mu koy def dem na sax ba wax ni dana saisir li nga xam ne moom moo di euh, euh, président cour d'appel bu euh, Ziguinchor ngir ñu rek retiré waat wala jël beneen décision bu bokkul ak bi nga xam ne démb justice bi jël na ko naka nga gisee acharnement bi nga xam ni agent judiciaire de l'État mi ngi koy am jëm ci jugement bi nga xam ne démb juge bi def na ko mais agent judiciaire de l'État moom lim njëkk a wax mooy njëkk ñàkk nekk dëgg bu dee Ousmane Sonko dëkkul Ziguinchor yow foo nekk maire kay ñaa ko fa dëkk. effectivement ak fay wootee nga nekk fa maire. Hmm. di fa voté am fa kër sa yaay dëkk fa say mbokk yëpp dëkk. Hmm. li ëpp ci sa dund ci dëkk boobu nga ko defee. kon buñ nee la yow dëkkoo ci dëkk boobu yow ban dëkk nga dëkk. kon loolu agent judiciaire de l' état li mu njëkk a wax teguwul fenn loolu wax jooju du méngoo lu méngoo ak dëgg. Hmm. leneen li ñuy wax mooy. Ousmane euh, juge bi muy si fay dafa am lien de parenté ak kenn ci adjoint au maire yi. seizième adjoint au maire. seizième adjoint au maire. procès en appel ci affaire Prodac bi. Hmm. kenn ci ñi doon àtte frère la bu ministre Victorine Ndeye. Hmm. te teewut àtte nañ àtte bi. ci procès boobu tamit am na keneen ku ca nekkoon koo xamante ni secrétaire. général bu Victorine Dey la woon. Hmm. kon ñooñu mënuñu wëlbatikuwaat di ñëw fii di ñu wax ay affaire lien de boo xamante ni diw daf ko am ak diw. bi nga xamante ni tàmbali nañoo wax loolu rek ñoom xam nañu ni li ñu bëggoon mënatut a nekk moo tax ñu bëggoon a déstabiliser juge bi ba juge bi ne bàyyi na dossier bi mais li ñu bëggoon juge bi defalu leen ko. agent judiciaire de l'État lim lim taxawee démb du taxawaayam du loolu moom mooy liggéeyam. Hmm. agent judiciaire de l'État yaakaar naa bu ñu koy wax sax feneen lañu ko war a gën a mën a waxee koo xamante ni dangay ngay état bi ci loo xamante ni dëgg-dëgg lu am njariñ la loo xamante ni dafa war a indil ay milliards Sénégal waaye Ousmane Sonko dem ci ab procès agent judiciaire de l'État nekk fa même bu amoon dëgg lan la koy lan la yokkal état bu Sénégal yokkalul état bu Sénégal daal xanaa boog lenn mooy douze ans yi ñu nekk Sénégal luubal yi nga xamante ni def nañ ko Sénégal bañ Ousmane Sonko remplacer leen loolu dong la ci mën a am ndam mais mënul ci am ndam leneen agent judiciaire de l'État ci ay procès yoo xamante ni état bu Sénégal dafay toppee nit ay alal foofu la ñuy gën a xaar agent judiciaire de l'État mais du ci ay dossier politique yi nga xamante ni ñëpp xam nañ ne politique kese moo tax a jóg dossier bi bu dul woon politique dossier bi du am. Euh, ba tey ñu des ci mbirum euh, Ousmane Sonko boobu ba tey gis nañ avocat état bi. Eh, eh, ne danañ interjecté li nga xam ne moom moo dee appel ci cour euh, suprême bu Dakar ndax jàpp nañ ni euh, li nga xam ne dogal bi nga xam ne juge bi jël ko démb jaarul yoon gis nañ ci ku ci mel ni maître El Hadj Diouf euh, ci saa si tembe génn na amal ay réaction ci li nga ne moom mooy mbiru Ousmane Sonko boo ñu doon ñëwaatal tey ba tey ci candidature bi nga xam ne ñu ci bëri démb ñu ngi doon jubilé jàpp ne Ousmane Sonko ci élection yi ñu dëgmal ah, war na nekk war na mën a nekk candidat ginnaaw ba juge bi jëlee dogal jox ko dëgg ni dañ ko war a delluwaat ci fiche yi naka nga gisee euh, euh, taxawaay bi nga xam ne avocat yi état bi fas yéene nañ ko def ngir xeex décision boobu noonu ñu jël ci cour suprême mais démb li nga xamante ni moom la juge bi def Ziguinchor njëkkewu ko am na ku ko defoon vendredi bee passé ci cour suprême bi nga xamante ni dem nañ fa di avocat yi Ousmane Sonko demoon nañ fa ngir kalaame ji mm-hmm. ngir direction général des élections li mu bañoon joxel li mu bañoon a jox ay fiches parrainage mm-hmm. mandataire bi nga xamante ni moom la Ousmane Sonko yàbbaloon foofu la ca direction générale des élections effectivement direction générale des élections liggéeyam du moom mooy valider du moom mooy invalider benn candidature dégg naa Ismaïla Madior Fall toog Ismaïla Madior Fall ñëpp xam nañu ni ñi nga xamante ni ñoo gën a xarañ ci droit constitutionnel ci Sénégal ci la bopp mais li muy wër léegi ci plateau yi di ko wax du droit constitutionnel mais wax ju méngoowul ak dëgg la hmm. li amoon en deux mille dix neuf deux mille dix huit neuf nee na dëgg la li mu wax dëgg la ni condamnation bu Khalifa Sall nekkul woon condamnation bu définitive loolu dëgg la. Mhm. mais bu nee condamnation bu Karim Wade bi nga xamante ni bi bi candidat yi di yoon di dem wala ñu yónni seen ay mandataire ci direction générale des élections mhm. ngir ñu retirer fiche su parrainage yi. Mhm. jamono boobu mu ni fekkut woon condamnation bu Karim Wade nekk définitive loolu waxul dëgg. loolu loolu bu ko Ismaïla waxee tamit loolu waxul dëgg boobu procès Karim Wade jeex na bu yàgg ba ñu tëj ko li ñu koy tëj ba exilé ko fi. Mhm. kon bu ne jamono jooju condamnation bi nekkul woon du définitif wax jooju dul wax joo xamante ni moom méngoo ak dëgg. Mhm. ginnaaw li nga xamante ni am na. dafa yeewaat beneen espoir ci ñi nga xamante ni dañu gëm procès bu Pastef mhm. jàpp ni ñoom war war nañoo mën a am espoir ba léegi Mhm. ndax nag gouvernement bi jàppoon na ni ñoom démb ci la coowul Sonko ak de élection 2024 di jeex. Mhm. mais nag li nga bëgg ak lii am loolu beneen affaire la. effectivement. ndax ñoom bi bi bi bi ñu arrêté Ousmane Sonko le 31 juillet wala boog bi ñu ko placé sous mandat de dépôt juillet. Mhm. ñu teg ci deux heures de temps wala une heure de temps ñu dissoudre parti acte bi ñu njëkk a mooy des désonkorisation dem ci siège u Pastef bi nekk. foofule. kër ci VDN bi. Mm-hmm. biñ fa demee affiche su Ousmane ba fa nekk ñu wàcce ko. di wër ci département yi fenn fu ne fu Pastef am siège. Mm-hmm. ñu wàcce photo Ousmane Sonko ba fa nekk daal di saisir bagage yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk. Mm-hmm. jàppoon nañ ne Ousmane Sonko boo ko tëjee une semaine. kenn dootul waxtaan ci moom. nit ñi dañu koy fàtte nekk ci leneen. waaye loolu sax ci laay waxee tuuti ci. article bu nga xamante ni tey journal Le Monde génnee na ko. Mhm. muy wane suñu presse bi ñu am ñàkk bu ñu ñàkk sérieux ar article boobu Le Monde génne mi ngi wax ci phénomène bi nga xamante ni moom moo am muy li ñu tuddee la sonkorisation. Mhm. te mooy am ci stade yi. Mhm. ci la Le Monde doon wax bay wax ci fan la fan la loolu jugee. di wax ni ay partisans ay partisans wu leader bu Pastef. léegi ñoom fi ñuy joxee seen di àddu seen xalaat mooy ci ay essai ndax heure bu ñu dugalee manifestation hmm. dañu leen koy lànkal hmm. léegi fi ñuy wanee seen i naxar mooy ci stade yi loolu hmm. journal Le moo ko bind tey daa dem ci géejawaay gi nga xam ne stade Amadou Barry fi nga xamante ni foofu la yëf yi tàmbalee mu waxtaan ak ki jiite zone bi waxtaan ak ki nga xamante ni fekk na bi loolu tàmbali ñu wax ko ni mu demee ba tey ji mu ni loolu mi ngi woy des tasaaroo fépp ci réew mi fépp match de football am loolu mm-hmm. sonkorisation bi dafay da da dafay takarnaasa mm-hmm. pour man yu mel noonu di am journaliste yi di ko jéem a ignorer waxuñu ci ba presse boo xamante ni dafa fekk baax bitim réew gis loolu mu jaaxal ko mu mm-hmm. ñëw fii def ci ay enquête am waxtaan ak ki jiite zone bi nekk zone b zone de bu géejawaay waxtaan ak ñi nga xam ne fekkee woon nañu loolu Mhm. vraiment lu gàcce la boo xamante ni presse bi nga xamante ni nekk na suñu réew amat amati nañ ko kon li nga xamante ni am na démb ay nit jug di wax ay nit génn di jibile vraiment yaakaar bu ñu amaat la ndax nag lii dafay wéy di wane ne mhm. Macky Sall contrôlé tul dara dara dara dara la Macky Sall contrôlé tul te li tax sax est-ce que tamit mënuñu leen a bloqué conseil constitutionnel ndax comme ni ngeen koy waxee jàpp ngeen ni conseil constitutionnel Euh, dépôt candidature yi foofu mu ñu leen fa bloqué. Macky Sall daa wóoluwul conseil constitutionnel. Hmm. wóoluwatul conseil constitutionnel ndax bu wóoluwul conseil constitutionnel xam nga ñëpp maa ngi wax sànq ne Karim Wade dossier woom atte woon nañ ko ba mu définitive. Hmm. mais joxoon nañ ko ay fiches mu dem collecté ji parrainage bi mu collecté parrainage ba pare jàll na parrainage. dafa dem conseil constitutionnel moo invalidé candidature bu Karim Wade. Hmm. moo invalidé candidature bu Karim boobu conseil constitutionnel xamoon naa ni Macky Sall mhm. benn mandat la def te amoon na ay sens yu bëri ngir am ñaareelu mandat mais jamono ji ñu toll mhm. Macky Sall ñi fiy jug di ko défier est-ce que kenn xalaatoon na ñetti weer ci ginnaaw danañ défier Macky Sall kenn xalaatu ko woon mhm. xam nga quatre mois dafa neex a muñ te boo gisee sax ma wax ci tuuti xam naa di dinañ ci ñëw boo gisee gouvernement bi ni mu ko tëggee nga xam ne ñi profil yi bi soxla woon mënu leen a am ndax mënoo nekk di gouverner Mm-hmm. presque onze ans six mois mu desee la quatre mois nga bëgg cee taxal ay nit am na nit ñoo xam ne ñu bëgg a tax effectivement effectivement ba tey eh, ñu euh, dem ci ci seen euh, parti bi ñu gis ngeen am lu ñu lu mat cinq candidats kenn ku nekk dem jëli ji ay fiches de parrainage am est-ce que nekkul woon tamit da ngeen doon waaj ni bu fekkente ni Ziguinchor dañ fa dañ fa xañ dëgg ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ngeen mën a dugal li nga xam ne moom moo di plan B tamit. politique nag moom lépp ay stratégie la. Mm. stratégie képp koo xamante ni da ngay def politique te amoo stratégie bu yeboo bu yeboo nga dem toog mm. ndax nee am nañ deux cent trente quatre personnes yoo xamante ni dem nañ direction générale des élections mm. wala boog yónni nañ fa ay nit ngir ñu dem jëlal leen ay fiches parenage te Macky xam naa ne ñu ñu candidat yu ci bëri moom moo leen yebal te loolu am na ci ndax defoon na ko en 2017 bi ñu amee 47 liste mu nekk ci ginnaaw liste yu bëri fayal leen caution. Mhm. ngir bu élection yi jàllee mu mën a justifier parrainage bi nga xamante ni moom moo fay def loolu stratégie la woon. lii nga xamante ni nag Pastef les patriotes def na ko. Mhm. stratégie bu Pastef les patriotes la ndax nag Pastef projet la woote ngir soppi doxalin bi nga xamante ni moom la askan bi di doxalee ci jamono ji ñu toll. Mhm. fii nga xamante ni Sénégal am alal joo xamante ni lu matul un pour cent ci askan bi ñoom ñoo koy lekk mhm. ñi nga xamante ni nag ñoo gën a bëri ci askan wala bu quatre vingt pour cent ci population bi mhm. ñooñu dañuy jël ay gaal dañuy fay ay quatre cent mille di dem Îles Canaries wala ñuy dem ca Lampedusa wala boobu ñuy fay ay millions yu bëri ngir wàcc Nicaragua dem Panama dem Mexique bëgg a dugg États-Unis d'Amérique loolu nag la fi Pastef les patriotes bëgg a te lii may wax ni Thomas Sankara moo ko waxoon que ni bu ñu reyee Sankara ay Sankara ay Sankara dinañ juddu. Mm-hmm. waaye boo faagaagaleen Ousmane Sonko boo demoon ba réussir ko te réussir def nga lu ne te réussir ko. Mm-hmm. même boo ko réussiroon sax ay Ousmane Sonko yu bëri dinañ judduwaat. dinañ judduwaat ñu des ci parrainage ñu des ci parrainage bi ba tey gis nañ dem merci le Kelodor li wax ni tey di ngeen commencé. Eh, eh, jëli li nga xam ne moo di parrainage commencé collecte li nga xam ne moo di ay parrainage ku ne xam na ni Pastef am na lu ëpp treize députés te ci loi yu bees yi nga xam ne tëggoon nañ ko mu jugee ca euh, dialogue ba dañ ne woon bépp candidat boo xam ni am nga lu mat treize députés su ma jumut wala lu ko ëpp euh, même soo fekkente ni amooy ka amooy parrainage yu mat treize députés yooyu la parrainé di nga a jàll est ce fekkente ni yéen am ngeen lu ëpp euh, vingt députés est non élection bu njëkk ñaari ci amoon dafa amoon pré campagne ak campagne. Hmm. mais élection yi mën nañ ne léegi trois tours la. Hmm. premier tour bi mu ci parrainage bi la. Hmm. deuxième tour bi moom mooy nekk élection présidentielle premier tour bi bu dee am na deuxième tour mooy nekk troisième tour bi. kon parrainage bi jamono yu wàccaat la ci terrain bi ndax parrainage boo ko defee normalement dem te testé sa bopp ci parrainage citoyen bi. Mm-hmm. boo paree ci parrainage citoyen bi man ngaa xam normalement ban score nga war a am ci élection yi looloo tax candidat yëpp ñi nga xamante ne am nañu ay député sax ñu ñoom parrainage citoyen la ñuy wuti mm-hmm. looloo tax looloo moo nekk ci wuti parrainage citoyen ak dem ci parrainage des élus bi mm-hmm. waaw waaw ah, ñu ñu ñu ñëw ci Maître Ngagne Demba bi nga xam ne defoon na exil euh, fële ca Mali ginnaaw ba ñu tegee loxo Ousmane Sonko doon wër ci ay leaderu Pastef yu bare bari Euh, gis nañ démb ñu génnee démb wala bërki démb ñu génne benn information euh, wax ni ginnaaw ba mu jógee ca Mali doon jëm fa nga xam ne moom moo di ca Maroc euh, passeport am mi ngi waroon a expiré niki suba ba muy wax ni sax dafa doon sàkku ci ambassade du Sénégal ba nekk ca Maroc pour ñu renouveler ko li nga xam ne moom moo di passeport am mais dafa mel ni Antoine Félix Diome moom moo lànk ni bu ko benn ambassade bu ne foofu Euh, acceptel mu renouveler li nga xam ne moom moo di eh, passeport am sa gis-gis ci loolu lu mu doon. mais passeport passeport mais affaire affaire affaire étrangère moo ko war a gérer normalement pas ministre de l'intérieur. ah gars yi de loolu lañ bind je moo jumul met nga jël loolu loolu loolu bu ko Antoine Diome defee loolu ingérence la loolu la ñuy wax ingérence yow li mu dugal loxoom noonu du loolu moom loolu yëfam la warul gérer loolu wala ministre bi nga xamante ne moom mooy Sénégal de l'extérieur hmm. ñoom ñoom ñoom ñoo war a gérer loolu ndax jàppoo bu ñu ko ko nangu la renouveler du ko indil ay jafe-jafe ci eh, nekka foofu noonu ca eh, réewum Maroc non man gis naa ko bi ma ko njëkkee bi ma ko njëkkee gis xawoon na ma indil tuuti jaaxle ndax nag réew bi mu nekkoon Mali ak réewu Maroc bokkul réewu Mali jamono ji ñu toll ay militaires ñoom ñoo fa nekk militaires yi ñoom ànduñu ak doxalinu CEDEAO te Macky Sall doxalinu CEDEAO la àndal ndax li même li xew coup bi amoon Niger CEDEAO di wax ni dafay amal intervention militaire ñëpp xam nañ ni Aïssata Tall Sall yëkkati woon na ci ay kàddu te Mali nee woon na képp koo xamante ni ñëw nga fa ak Burkina da nga leen a déclaré guerre xam nga dëkk boobu boo fa tegee sa tànk xalaatoo benn yoon ñu lay indi jafe-jafe wala ñu lay jéem a rapatrier di la indiwaat Sénégal. mais ñëpp xam nañ ni Maroc de un mois am na relation yu rafet ak Sénégal Mohamed VI am na relation yu rafet ak Macky Sall te amul amul démocratie dëkk boobu amul démocratie kon pour man risque la daal dëgg-dëgg ci mettre ngir mu dem fa. ñu naan cinq ñu naan quatre Sall indi mënul apporter dara Sénégal Macky sérieux wul te dafay foowe sénégalais ndax nag amaru Ba gouvernement bu njëkk bi ñu naan amaru Ba ñu ngi ko faloon septembre septembre deux mille deux mille vingt deux gouvernement boobu def na treize mois daanaka. ñooñu lan lañu changé ci jafe lan lan lañu soppi ci jafe-jafe sénégalais dara li nga xam moom lañu waxoon bi ñu ñëw danañ fexe ndaw ñu am xëy danañ fexe dund gi gën a wàññeeku dinañu fexe ñi li nga xamante ni moom mooy loyer bi gën a wàññeeku mais yooyu yëpp ban moo ci am loyer bi wàññeekuwul euh, prix denrée de première nécessité yi gën a yokk amul dara luñ fi diggee woon loo xamante ni loolu amal nañ ko nuñ ko diggee woon bi nga xamante ni ñëw wutal ndaw ñi xëy nag moom moo ci gën a doyatiwaar te Amadou Ba bi ñuy formé waat keroog gouvernement bi dafa taxaw wax a wax ba fàtte wax ci ndaw ñi ba ñu sëgg ci ay noppam du ko fàttali kon ñoom ndaw ñi musul nekk seen priorité mm-hmm. dañu koy dem ci ay plateau de télévision wala ñu def ay ay ay slogan di ko mbubboo mais ñoom mosul nekk seen priorité. maa ngi koy wax sànq Macky Sall li mu bëggoon ci gouvernement bi amu ko boo seetloo li mu def nii xam ne am na ñum ci bëggoon dugal ñoo xamante ni bëgguñ taq ci yëf yi. Hmm. remeniment bi mu annoncé woon Sénégalais yi di leen annoncé ne leen moom war na def ay changement yu mag a mag a mag. Hmm. mais indiwaat ñi nga xamante ni profil yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon nga tegaat leen fi. loolu yow dara ngay changé li tax man leen Macky Sall sérieux wul mooy nee na dafa taxawal ab benn ministre délégué boo xamante ni mi ngi gérer birum chemin de fer bi hmm. dafa war a dekkilaat saxaar bi ngir ni mu daan dawee ay ay at ci ginnaaw mu dellu di dawewaat noonu le mu jël ministère boobu au lieu que mu dénk ko koo xamante ni am na xam-xam ci loolu mu jël ab gynécologue jox ko loolu gynécologue yi la xaar ci moom vraiment suñu hôpitaux yi dañoo manqué ay gynécologue mu yóbbu ko Pape Amadou njaay moomu mu dem faj yi moom lañ gën a xaare que moo kooku dëgg-dëgg moom mooy relancer waat de d'affaires bi léegi mooy waree ni Macky Sall ci caaxaan la nekk vraiment sérieux wul ki nga xamante ni nag moom moo fi nekkoon naan réew dañ koy pencoo kenn du ko paajoo moom moom jox nañ ko ci paccoo bi léegi loolu boo xoolee profil yi nga xamante ni ñi fi nekkoon ak ñi nga xamante ni ñoom la fi Macky Sall tegaat la lay gën a wan la Macky Sall bëggoon naa dugal ay nit mais nit ñooñu bëgguñu takk ci gouvernement Macky Sall bi nga xamante dëgg dëgg-dëgg très sincèrement quatre mois quatre mois moo ko fi dese ndax nag lii ñu def jël Antoine Diome yóbbu ko pétrole Antoine Diome magistrat la Antoine Diome fan la jàngee dara lu jëm ci ay ressources ressources naturelles yooyu lu mel ni ay pétrole ak ay gaz Antoine Diome jàng ko fenn Antoine Diome droit la doon jàng ba mu paree ci droit mu doon jàng mu dem def concours nekk magistrat. ba mu fa jógee nekk agent judiciaire de l'État def li mu def ba ñëw ministre de l'intérieur kon yooyu vraiment Macky Sall nit boo koy jox ab poste de responsabilité dëgg la ñi nga xamante ni techniciens yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ministères yi ñoom ñooy gérer lu bari mais nag ki nga xamante ni moom mooy patron ministère boobu war na cee am xam-xam tuuti ci liñ koy dénk mais dara nga jël nga jël. nga jël Sidiki Kaba ndax moom nga moom moom nga yóbbu intérieur Sidiki Kaba ñëpp boo ñëpp xamoon dañ ko xamoon mooy défendre ak ak yelleefu doomu aadama yi waaye classe Sidiki Kaba gi ñoom ñoo bëri ci gouvernement bu Macky Sall jékki wan lam doon defendre ginnaaw di défendre benn nit boo xamante ni fitna lay teg ci askanam li mu doon défendre bu njëkk moom la wëlbatiku défendre leneen contraire lay lay lay nga jël Ismaël Madior Fall yóbbu ko affaire étrangère jël Aïssata Tall Sall indi ko vraiment Macky Sall sérieux wul daal moo tax gouvernement bi daal xam naa <laughs> neexul analyser ndax Macky Sall vraiment sérieux sérieux wul ndax gouvernement bi moom bu kenn xaar ci ñoom dara ñu indi fi benn solution ndax mënuñu fi indi benn solution ci quatre mois du dañuy wàññi dund gi du dañuy wàññi loyer bi du dañuy immigration irrégulière bi dafa du ñii ñoom ñoo ci indi ay solution ndax amuñu compétence yi taluñu ko falu lañ bëgg mais tamit sénégalais yi daal dëgg-dëgg yaakaar naa ñu ngi leen di xaar de pied ferme ci terrain bi ndax nag ñoom jafe-jafe sénégalais yi taxawuñ ci bëgg leen a sonal jàpp ne ñoom dinañ génne alal yu bari ngir jënd sénégalais yi mais nar nañoo génnee xaalis bu bari bu raw bi Abdoulaye Wade génne woon 2012 mais élection yi moom lu leen koy gañaloo man gisuma ko. waaw xanaa di leen sant bu baax di wax sénégalais ni ñi nga xamante ni ñoom ñoo dem direction générale des élections di jël ay fiches parrainage bokk ci coole nag xam li waral coole ko gën gis naa ñu bari ñoo xamante ni dañuy jéem a bokk ci coole waaye xamuñ lan moo waral coole coole nag li ko waral mooy dafa am système bu fi nekkoon 1960 wala lu ko jiitu sax jamono esclavage ba jamono colonisation. méngoo wut ak suñu ay réalité socio culturelle fii ak système boobu mi ngi fi nekk ay quelques personnes ñoo ci gis seen bopp ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo coloniser woon Sénégal loolu mooy enjeu wu élection présidentielle yi kon boog loolu mooy coow li waaye coow li vraiment du yenn débat yu ñàkk yu xamante ni amul fulla amul fayda du loolu mooy débat bi te jàpp naa ne jamono ji ñu toll ak li nga xamante ni moom mooy la mag Sall doon wax En 2011 la Mazidi-Kilic fera face à la toute puissance du FIRIC et du mooy ñi nga xamante ni moom mooy puissance bi nga xamante ni moom la réseaux sociaux yi di am dina ak police bi nga xamante ni moom la régime bi yor waaye dana jàkkaarloo tamit si alal yu bëri ji nga xamante ni moom la ñuy def ci élection yi waaye yooyu yëpp buñ ko ci defee tamit du tax ñu am ci ndam maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous bu beneen yoon jërë ngeen jëf